boo may seet réseau yi yow te foo bindal te kàddu sama waa ji teg ci o dolil o yaa ngi kàddu o boo may seet réseau yi Instagram Facebook foo bindal te kàddu sama waa ji teg ci o commentaire ñi wax nga nu dëgg kàddu mag gi leen war def te bàyyi kàddu xale yi. eh dimbali ñu ñun kàddu xale yi la ñuy def bu ñu kenn sonal. ci moom pour mag la du pour xale. kàddu xale yi lañ def ba egg si fii kon kàddu xale yi la ñuy eggale. xale yi moom nanu dem seetaani Tom et Jerry rek. sama yoon nekku ci ay commentaire ñun kàddu xale yi la ñuy àggale ku bëgg baax na ku bëggul moo xam. waaw léegi taxaw leen léegi ñu kàddu xale yi ñu kàddu mag ñi léegi kàddu kese la ñuy def teg si oh léegi déglu son bi kàddu oh. boo may seet si bind te kàddu sama waa ji teg ci o dolil o yaa ngi kàddu o boo may seet si réseau yi foo bind te kàddu sama waa ji teg ci o boo may seet sama waa ji teg ci o dolil o yaa ngi kàddu o boo may seet si réseau yi foo bind te kàddu ma waa ji teg